Il a aussi formé de brillants élus qui se sont éparpillées dans tous les coins du pays, telle l'expansion de la lumière dans l'obscurité. loolu le moom de moo à al azhar ñoo ko wax ci 1995 ñu ne ginnaaw yàlla si ngeen bàyyi si yaatal na lislaam ci réewam muy Sénégal ba nga xamante ni taxawaloon na ay école ay madrasa taxawal na ay juma ak i zawiya yoo xam ne formé na ci ay muqaddam yu yaatoo yaatu ñooñu tasaaroo ci biir réew mi ci bépp koñ réew mi ba nga xam ne mu mel noonu lumière buy génnee qui lëndëm daal le leeral l'islam amul Sénégal keneen ci Maroc mon cher Soukayrij cher Soukayrij disait et il désignait El Hadj comme le legs béni des anciens aux nouvelles générations moom mooy maanaam boobu nekk ci Maroc nekkoon ci Maroc ñu xamal ni ci Cheikh su su xëy riche la mu waxoon ci moom Hadj Malick nee na dafa nekkoon ndono boo xam ne bu barkeel la ndono bu barkeel bu jógee ci mag ñu njëkk ñu jëm si génération bu tey kon loolu ay témoignage yoo xam ni rawatina nag war nañu.

jamono boo xam ne kenn xamatul lu baax ak lu bon jamono bu mel noonu nag Maam Seydi El Malick Sy ci ay jàngaleen dafa mel ni ku nekk ci digg géej boo xam ni jaxasoo fànn yu metti temps bi baaxul gisoo bu mel ni ab faar bu leer nañ la bu yoon nga war jaar ba yegg ci si tefe bu wóor loolu nag ko defoon ngir orienté xol yi ak jëmm yi ci leer ma yóbbu si ñu si daal maa ngi si nous éclaire parce qu'il possédait le savoir ndax suñu dox leer leeral ndax dafa yoroon xam-xam bu sàkkoo téye ko te ku ne xam na ne xam-xam mooy leer boo amee xam-xam da nga leeral sa yoon leeral yoonu ñeneen quand on est possédé par son savoir waaye bu la sa xam-xam ñoom wëree bañ jaayee na su boobaa xam-xam boobu dana dem ba gëlëmal la lay éprouver nga daal di réer loolu sa bopp te doo gis ndax koo xam ne kii gisatul mënatul gis yoon mënatul teg boppam ci yoon bu koo xam ne dootul woon kenn yoon boo xam ne nit dana ci mën a jaar ba yegg ñu mën a jëm waaye suñu borom subhaanahu wa taala dimbale nañu engagement Malick Sy ba nga xam ne moom lumière bi mu ko may mooy lumière buy leeral yoon bi nga xam ne leeral na yoonam leeral àdduna waaye euh, nga xam ne ñoo topp ci moom kon nag li mu waral centenaire bi occasion la bu non seulement ñu koy fàttali dañ commémoration waaye ñu branché waat da ko suñu papa bu baax ñu doon waxee Mansour moom daara ji branché am dama bëggoon branché ñu ñoo branché à la source de la lumière Préférablement chemin en nous réappropriant les enseignements de la révolution. Ni moi pas mon khalife bi ñu Babacar waral na ci man devoir na ci man ma andil la bépp assistance bu état war a andil ci waaw war a andil diine loolu moo si ndax suñu wareef la waaye lu ñu bëgg lu ñu bëgg suñu biir xol yaakaar naa ne moo waral li ñu fi tàmbali tàmbali ba rek ah, jumaa yi ñoo ko def xadara tijaan yi ñoo ko def ñun dañ ci dugal suñu loxo di barkeel wax naa léegi moom Maxtar Cissé ñu danaa ci doolewaat suñu loxo danaa loolu ci defoon ñu liggéey mën a pare fii ak at mi jeex ci yàlla xam ne ñu jumaa joo xam ne ku ko gis dina naaw traawal dina sell alal bi dina sell lépp lu ñu liggéey yaakaar naa ne jumaa bu mu paree hôpital bu bees bu ma tegoon tey léegi xeer bi ak seen Mansour da baax hôpital boo xam ne fa la ñu jëm ci wàllu technique xarala ak matériel ñetti téeméeri lal la hôpital universitaire la ñu ko tuddee moo tax xale bi moo joxe tur hôpital Seydi El Hadji Malick Sy également assuré nañu mag bu liggéey ci fukki weer ak juróom-ñett ministre de la santé docteur Mamadou Agnès Ngombale dana ko saytu waaye nag defaraat na hôpital Maam Abdoul Aziz Sy Dabakh defaraat ko ba nga xam ne mbokk yi mën a am aussi lu dajale wér-wér ngeen ñu maa ngi defaraat beneen autoroute boo xam ne dina jaar fii ci Tivaouane jëm Ndar loolu daa am bu jaar ci wax nañ ne liggéey boobu dana tàmbali autoroute boobu bu paree ñëw Tivaouane dina yomb lool loolu laa doon li ko bëggoon wax xalif bi di ko sant nag bu baax di ko gërëm nga jot ci li ma ne sama gërëm suñ maa ko koy maa koy ziare lu bëre bëre ndax ba may jàppale ba dëgg yàlla nekkagul xalif bi ci ñoom ba may jàppale nekkagul xalif bi ci ñoom te loolu rëy moo tax suñu booba ñun mooy wutali tur dama waxoon rek loo xam ne wax bu rafet la waaye ñu wóolu ci ko ay politiciens man dama ne Thierno Sène ak simple citoyen yi yàlla xam ne waxuloon simple citoyen dama ne ay citoyen la muy dëkk citoyen ma ñu bokk ci réew mi waa réew mi kon moom Serigne Serigne Mansour Sy Djamil mu koy fàttali sànq coow li bëri ñu ne ndax dama ñëw teewaan am déet moo ne mën a ñëw ma ñëwee moo jël kàddu wax ci wax yoo xam ne fan wax dooju te ndax bu ko xam ci dëggoom mu bu nekkul ko xamal ne lépp lu ñu yëkkati dinañ ci dugal suñu doole ak loxo dugal ci accompagnement bu état bi pour que ne lépp lu mën naa ne du dëkk bu mag a waral dana maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm ñu fi teew ñëpp war naa jaar si dengan yang Allah ambil kuat kemudian dan alman dari jasa wahai bersebutu macam bersebutu salam sambil sebuah berubah nama sebuah sebuah